dal leen ak jàmm ci seen rétrospective santé atum 2021 di tàmbali ak réapparition feebar bu ñu duppee fièvre jaune ci ndorteelu at ba juróom-ñaari cas la ñu confirmé ci ñeenti district sanitaire bokk ci ñett région bu Sénégal Tambacounda Kédougou Matam ñu nemmeeku woon ni ñaar ñu ci génn àdduna ci ñeent cas yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci district sanitaire bu Kidira ci noonu ministère bu ñu dénk santé déclenché woon ab réponse ci ay activités ci campagne vaccination locale ngir ñu xeex feebar ci wet ga mbas mi di wëy di law fii ci Sénégal ak si àdduna wëngal këpp Sénégal dund ñaareelu vagam mi janvier ci samu national liggéey ga dafa gënoon a yokk depuis décembre ñu doon nemmeeku 250 wala 300 cas bés bu yàlla sàkk contre ay dizaine ca weeru novembre lawub mbas mi nag poussé woon autorité yi ñu indiwaat couvre-feu bu 21h jotee jàpp 5h du matin ci région bu Dakaru Thiès sol masque nekkoon obligation centre de traitement itam yi doon jël en charge cas yi gën a garaaw daal di tijjeeku waaye fajkat ya tàmbalee sonn association sénégalaise bi ëmb médecins urgentistes yi ñoo ko doon alerté ci ab bataaxal 22 février atum 2021 Sénégal lancé officiellement campagne vaccination ngir mu xeex mbas mi tàmbali ko firme chinoise Sinopharm ministre bu ñu dénk kaaraange Abdoulaye Diouf Sarr moo nekkoon ki njëkk ki jël vaccin bi teg ci ay fan njiitu réew Macky Sall daal ci topp ak ñeneen membre yu gouvernement bi Sénégal nag taux de couverture vaccinale 80 pour cent fii ak atum 2022 fanweeri doomi aadama daal di jël vaccin ba ci cérémonie inauguration bi ci siège ministère ña ca des waroon na jot nag seen ñaareelu dose fukki fan ak benn toftal dose bu njëkk ba ñi waroon a jël vaccin bi nag ñu njëkk moo di ñi nga xam ne ñooy liggéey ci bërëb fajukaay yi ak ñenn ñi nga xam ne dañoo am yenn feebar yu metti yi ak ñi am 60 ans ak lu ko ëpp bu ñu sukkandikoo ci ministère bu ñu dénk kaaraange lu toll 3,5 millions aadama la ñu waroon xaarandi ci vaccin yi Sénégal jotoon na vaccin chinois ngir démarrer ci nu mu gën a gaawee campagne vaccination bi laataa muy xaar yeneen vaccin yu war a tukkee ca initiative COVAX waaye ba ñu démarrer campagne ba ay effets secondaires ñu nemmeeku ko askan wi daal di tiit lool ba ñu si bëri lànk ni dootuñu jël vaccin bi loolu waraloon ba ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr génnoon di àddu ci vaccin AstraZeneca bi nga xam ne ay fan yu bëri boobule vaccin sax indi woon na coow ca dëkku européen yu ci mel ni France Allemagne yi nga xam ne jotoon nañ dakkal seen campagne gannaaw ba ñu amoon effet secondaire yu bëri yu jugee ci vaccin AstraZeneca ñu bëri ci askan wi nag lànk ni dootuñu jël vaccin bi loole waral vaccin yu bëri yu ci mel ni AstraZeneca jot a périmé Sénégal nag obligé woon sànni yenn vaccin yi mu doon ab perte pour Sénégal te fi nga xam ne mbas mi mi ngi gënoon di wëy di law ak problème mu denc waraloon na tax vaccin yu bëri daal di périmé bés ci di jàll kaa yi di gën di wàññeeku askan wi di négliger mesure barrières yi gannaaw Europe ak yeneen dëkk yi mu concerné ci àdduna si ñetteelu vague bi ñu annoncé ko fii ci Sénégal weeru juillet atum 2021 ci moment bi nga xam ne nag mu ngi mel ni lépp mi ngi doon jaar yoon ñu bëri nag jàpp ni ñetteelu vague bu ñëwee suñu homme politique yi nga xam ne ñoo doon dajale ay nit ci ay meeting tournée ak yeneen i rassemblement ñoo ko waral fii ci Sénégal nag ñu préventive yi ñu gën ko négliger organisation mondiale de la santé doon alerté ay semaine ci arrivée ñetteelu vague doon ab réalité fii ci Sénégal institut de recherche santé surveillance épidémique IRSF confirmé woon présence variant bi nga xam ne tiitoon na ko lool ñu tuddee ko delta directeur IRSF professeur Souleymane Mboup di dànkaafu OMS di sollicité ñu gën ko bàyyi xel OMS doon alerté 40 pour cent décès supplémentaires yu nemmeeku ci benn semaine Sénégal cas yi di yokk ak contamination yi ñu bëri di génn àdduna ñu am nag chiffre yi nga xam ne musuñu ko am depuis mbas mi dugg fii ci Sénégal ci noonu njiit réew Macky Sall di woo askan wi ñu mobiliser waaye annoncé wul woon benn mesure restrictive donte variant delta mi ngi doon woy di def ay ravage ca cimetière bu Yoff li ñuy suul par bés ñu multiplier wu ca cimetière chrétien ba même chose ñu nemmeeku 60 000 cas coronavirus ñu détecté woon depuis début pandémie ba ci weeru juin ba ak quelques cas rek lañ doon nemmeeku par jour ba delta duggee nag fin juin ñu nemmeeku ab pic quotidien 1700 cas bés bu jot ñaari fan ci weeru novembre ñetteelu vague bi nga xam ne tambali woon na ndorteelu weeru juillet tàmbali wàññeeku donte sax campagne vaccination bi mi ngi doon wéy Sénégal amoon officiellement 73 922 cas infection 72 028 déclarés guéris 1868 ñu ñàkk seen bakkan ak kenn ku ñu évacué France 15 sous traitement bu ñu sukkandikoo ci communiqué ba tukkee ci ministère de la santé lu ëpp 1 million 294 mille jot a jël ñàkk ba donte xeex mbasum coronavirus yombul woon amoon nañ déficit oxygène ci centre de traitement épidémique yi ñu bëri nag jàpp ni dee yu bëri yi rupture oxygène boobee moo ko waraloon loole taxoon sax ba ministère de la santé doon def tuuru gazier yi ku ci mel ni Sahel gaz molécule gaz oxygène air liquide ngir xool naka la mun a def ngir saafaraal askan wi ñu mun a am oxygène. mu mel ni loolu doyul ñett fan ci weeru décembre IRSF e annoncé premier cas positif variant Omicron bu yees ñu détecté ko ci ab voyageur bi nga xam ne jóge woon na Sénégal donte certificat vaccination bu complet la présenté ba muy dugg ci Sénégal IRSF e di laboratoire bi ko confirmé jàpp ni nag kookule teewe woon na am ndaje boo xam ne 300 doomi aadama ñu ngi fa woon diggante 24 ak 25 novembre ba jamono ji nag campagne mbasum coronavirus bi mi ngi wéy lu ëpp doomi aadama jot nañ ko jël atum 2021 nekkul ñetteelu vague bi kese moo ko gën a marqué ca début weer mars ay cas poliomyélite nemmeekoo nañ ko ca diwaan bu Diourbel ñu tolloon ci ñeent bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur programme élargi vaccination docteur Ousseynou Badiane réapparition boobu la feebar nag xale yi la doon jàpp ñu amagul juróomi at docteur Badiane jàppoon ni nag porosité frontière ak faible couverture vaccinale bi moo ko waxal ñu nemmeeku fukk ak juróom-ñaari cas fi ci Sénégal 17 juin 2021 ay tournée de yooyu ñu koy amal ngir ñàkk xale yi nga xam ne jotuñu woon jël ñàkk. feebaru dang dellusi woon na itam ci atum 2021 mi octobre la ñëw autorité sanitaire yi annoncé ñaar fukk ak ñaari cas dang ci Rosso Sénégal nekk ci nord bu Sénégal IRESSEF daal engagé xeex ba ngir mu contenir boobu feebar Sénégal jamono ju muy xeex ngir wàññi mbas mi yeneen feebar daal di feeñ ñu ci mel ni rougeole ak rubéole début novembre ñu nemmeeku ay cas ci région bu Louga autorité sanitaire jël seeni matuwaay lancé campagne nationale vaccination ngir xeex rougeole ak rubéole ñaar fukki fan ak juróom weeru novembre ci noonee ñu tàmbali recensé bépp xale bu am juróom-ñeenti weer jàpp juróomi at domaine infrastructure itam 2021 euh, am na ay l'hôpital yu yees yu ci mel ni hôpital bu Kédougou bi ñu inauguré 22 juin ak yeneen ñetti hôpitaux régionaux ubbeeku ci Touba Kaffrine ak Sédhiou toll ci 97 milliards hôpital national Cheikh Ahmadou Khadim bu Touba septembre lañ ko inauguré di ab programme bu bokk ci modernisation ak reconstruction réhabilitation suñuy infrastructure hospitalière sénégalaise wàllum production vaccin anti covid 19 itam signé woon na ab accord vendredi 9 juillet atum 2021 ak partenaire yu bëri yu ci mel ni ay dëkk européen banque mondiale wala itam états-unis ngir ñu financer première phase boobu le projet usine bi nag war na tambali production atum 2022 donte Afrique day importer pour cent yi besoin vaccin usine bi nag ci Diamniadio lay nekk dina produire lu toll ci trois cent millions doses vaccin at bu jot atum 2021 bëri woon na ay yëngu-yëngal ci personnel soignant yi syndicat autonome médecin du Sénégal ñoom itam yàgg di dénoncer violence physique ak verbale yi ñu nga xam ne seen agent de santé ñoom la ñuy subir depuis mbas mi tàmbali fii ci Sénégal alliance des syndicats autonomes du secteur de la santé and gësëm dellu ñu ginnaaw sans fàtte ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci centre de traitement yi di doon revendiquer seen prime de motivation mbokk yi fii la ñuy ndar képpe seen rétrospective santé atum 2021 ñu leen jox dig daje année bii di ñëw di leen di de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne et heureuse année 2022